baolinfo.net site d'information générale baolinfo.net arobase gmail.com baolinfo.net informé en temps réel. dégg naa version euh, Pape Alenia euh, dégg naa version euh, pes en ligne bi loolu yàggul je crois que deux deux man retenir naa version Pape Ale moom réfuté na allégation wu en état d'ivresse bi. gisuguma lu ko mandargaal wala lu ko firndeel. kon on s'en tient là mais li am ba des mooy nit ki boo nekkee homme public bi nga xam ne dëgg daf la tax a jóg wala dëgg goo xam ni arrangé wul nguur gi danga war a fagaru bañ a maye dara parce que gis nañ fi un homme politique am problème ak soxnaam sax ñu koy médiatiser que di ci dugal loxo nguur nga xam ni problème personnel la vie privée bañuñu ba dugg ci sa vie privée gis nga man même ci sama côté vie privée <laughs> mais defal def nañ ma ci yoo xam ne bés bu jotee dinaa ko révéler duñu duñ du ñu bàyyi dara donc ñun ñi nga xam ne dañu taxaw pour askan bi te askan bi am ci ñun yaakaar ñoo war a ñoo war a euh, euh, euh, fexe ba nguur gi du am lenn ci ñun parce que lu day ni tarfatal ay ni bu ko amee ci ñun jeex na l'état est mafieux par essence te loolu ça date pas d'aujourd'hui man wax naa fi publiquement que aéroport AIBD Blaise Diagne bi muy doog a tijji douane teg na fi loxo cinq cent vingt kilos or cinq 520 kilo or yooyu ay fan lañ ci teg ñu rey benn officier de douane dóor ko balu fital ci biir otoom Kër Massar yooyu yëg yëga ko enquête boobu fu mu mujj or boobu ci boppam dafa manqué 19 kilos biir aéroport dégg nga drogue bi ñu jàpp port dafa manqué ay kilos tamit loolu mooy mafia l' état est mafieux par essence or bu ñu saisir aéroport ñan ñoo ko séq du man du yow c' est pas les civils c' est pas les citoyens ordinaires drogue bi ñuy saisir port ñan ñoo ko séq affaire faux billets ñan lañ ci ñan ñoo koy def mais des gens qui sont dans l'appareil d'État moo tax ma wax État pas État en tant que institution mais ay nit ñu nekk dans l'appareil d'État lañ ciy joxal joxoñ baaraam. Euh, douanier boobu kenn déggatul ci moom dara. or boobu 520 kilos ñu téye ko aéroport mu manqué 19 kilos kenn déggatul ci dara nit ñi duñu duñu duñu toppatoo sax xeetu information donc je confirme que l'État a toujours été mafieux au Sénégal. Baolinfo.net, baolinfo point net arobase gmail point com baolinfo point net informer en temps réel